الذين ما السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا بركة شغل قديم بقي جلدي mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare di leen ndokkeel bu baax ci daje bii nu daje ci barab bii nga xam ne barab la bopp mu ngi bokk ci barab yi alayhi salaatu wasalaam digaloon saaba yi ne leen bu ngeen ko rombee na ngeen foy foytu waxoon saaba yi ne leen ida maratum bi riyaadil jannati fartaw la ya surallahi wa ma janna xaala majaalu zikr bepp barab bu ñuy fàttali ko yàlla wala waye ndax waye yalla moy lan moy ku jox leppam yalla ba yalla nangul ko kokoy waye yalla xamna sikki neewul ci ne Serigne sa mo waye yalla la ndax da wayo Serigne Touba te ko waye Serigne Touba yalla kon nak Serigne mustapha giñu ne ko legi dafa ben benen mbedd bu ñuy dugg waye ben mbedd rek la moy lislaam mooy lépp lépp maa farat naa fil kitaab min shay sunu borom nee na lu mu doon lu mu ruqe ruqe lu ci nit ña xalaat fekk na yàlla mi tëral programme tudd albadiya moo leen ca jiitu moo tax ma ne juum nañ bañ ne benn bis la jigéen moo ma ne déedéet ëpp na ko yàllaa ko wax kon jigéen ñi wax nañ dëgg bu ñu fekkee ciirub yàlla bu yaatu ñu bëgg koo xatal tënk ko ci vingt quatre heures képp te yàlla ne lépp jigéen a su boobaa jot na nag sharia ñëw nag wut ku ko layal ci ne yéen kat da a juum li ngeen ko jox du cëram li mu cëroo ëpp na te suratu mariama moom def naa ñi ñi jàngul alxuraan mukk luñ sax xam nañu mariama moom aw saar ndax mariam la ma ngi daan wax ma ngi xam kon li ñu bëgg a wax tey moy indi yenn dalilaat yuy tegtale ne ndekete yàlla moy al hakim moy mudabbirul umur te alxuraan li ma waxoon mooy maa kaana li mumina min muminin wala muminatin idha khala allahu wa rasuluhu amran an takuna ni an yakuna bune ne an takuna lahumul khiyara kon nak yalla waxon maryam ne ya yaa déglul yaa mariamu yaa munaada inni stafaytuka yaa mariamu inni stafaytuka yow mariam mu ne ko la bayka ko maa la tànn ci jigéeni dooma jigéeni adduna yi yaa mariam uqnuti li wasjudi warka'i maa raaki'in benn asiyatu bintu mazahib kaccoor bu kaccoore bu kenn wax bu wax lu kenn mësta moy ana rabbukum alaa di firaaw mu dëkk ak mom ci keur firaaw na gën dëng xala Asiya gëna jup ab régle yàlla atti sen digënt ne Asiya yow mom fi nga ma féete ak fi nga féete Muusa lima lay fay mooy yowmal khiyam aljana la lay dugal waaye duma ci yam kima sak mu gënal ma te luma sak motax koku la lay jox mu dekk ak yow yowmal tak bar muy aljana kon asiyatu bokku na ci jigéen ñi yàlla di jox ndol mak mu dekk ko aljana خديجة بنت خويلد كيروك بنجول مكة ديمي تغارو حيرا جوغي فنان دسيروني زميلوني ودمي تميميا مام راج مالي لنوخ وآبا مرتعدا مما يرى فزعا خائلا زميلوني ترفع غممي جيسول دارا لوم جاب نمنا دندي جندي نجاقرم لدول نجم سانغان نجم نب خديجة بنا جوغ جاتنا ndax ñaari loxoy takk tubay waaye ñaari la koy takkum pendal wa tax xadiijatun sakkanat bil xal di xaa ilatan lam yuxzika allaahu fi daarayni laa tahin xadiijatu ne yonent bi li ma xam te xam day mooy yàlla du la toroxal ndax jukk yi nga ràngoo ku ko mësa ràngoo yàlla teral la def ya muy def ba am kon lislaam amoon na njàqare jamono jigéen tekki ko defe naa ku dem poroxaan bërki démb les ministres bu dee noonu lañ koy waxee <laughs> les députés bu dee noonu lañ koy waxee les fonctionnaires bu dee noonu lañ koy waxee ñëpp ñu takki garaat ku nekk rikki nga sa garaat war woote ne yaa ngi dem poroxaan moo tax ma ne Faatu Géwél Juuf mooy ki mën a way xam nga lu mu wax genn jigéen gu am màggal gi mooy maam jaar geneen jigéen du ko ñaareel kon la sëñ Mbay Jaxate waxoon wala sëñ Mat Jaw Paxa waxoon ci Sëriñ Tuubaa ne ko te cheikhil imamul fard ladi laa yusanna wala yu jamma wa kullu cheyin siwaahu yusanna aw yu jamma mu ne sama sëriñ mooy kenn kiwéet te kenn du ko boolee ci ñaar te du dem ci mbooloo soxna jaare it ràngoo na loola Sëriñ Tuubaa waxal boppam ci ñaari guddi yi Ndakaaru ci néeg bu lëndëm bañ ko tabbaloon boo ko fa maam jaara fekkee ne ko la nga déeyaan yàlla maa doon sa seere yaa ne woon yàlla danaa la jaamu jaamu boog kenn mësula koo jaamu te danaa liggéeyal sa sang bi loo xam ne kenn mësu ko ko liggéeyal maam jaara ne ko maako seere kon Ahmadu mu ne ko na ngor gi doy na jom ji doy na fulla ji doy na gëm yàlla gi doy na watir gi doy sëñ Tuubaa nee na soxna jaara mat na nday ku ne mu ne soxna jaara mat na nday ku ne soxna Faati Isa yaay maam Thierno yoonu murit am na crise tubaab yi bind lettre jox maam Mor Jaara magi mag ak maam Thierno Ibrahima Faati mi sëñ Tuubaa bàyyi woon ne ko Thierno desal ma ci kër gi ma dem tukki ngeen ñëw tubaab yi bind leetar ne maam ja ne euh, euh, euh, maam Thierno ak magi mag seen mag ju baax ja tubaab ju yóbbu woon faatu na damiru maam Thierno mënu ko weddi xam nga lu tax mooy ñi ko njëkk a dem dee nañ ku njëkk a dem sëñ Tuubaa rek dellusi woo kon buñ ne des na bu ko tënkee ca ñooña day jàpp ne du ñëw waaye lu tax bi faati isa génnee dégg ñuy ngana ngani mu ne Thierno mu ne ko mbàkk mu ne ko kaay mu ñu ne ko mën a yàgg Ahmadu mii de ci suba ba léegi yéen a ngi ngunum ngunumi ci li ngeen ngunum mu jëm kaw lu mu doon mu ne ko ay li yéwén teew aw du yéwén ñàkk pexe jot su sa doom ja sa taaw ba ka nga wóolu sa xarit ba ka la bëggoon ka nga soppoon ka la soppoon sa yaakaar ja tubaab yi nee ñu faatu nañ faatu na mu ko ceer na mu ne ko mbàkki mu ne ko jàppoon naa ne xam nga ahmadu sa mag waaye na mu ne ko mbàkki ne ko ahmadu sa mag tawat na man la toggaloo laaxub daxaar ma toggal ko ba mu ca ñamee ba yaramam dëgër mu jëg di jaamu yàlla laaj dama keroog faati yi sa ana bëgg nee na ma ne ko ah, yow man xiyaam day bëgg naa su ma fa demee dem àjjana waaye lu ko jiitu nag pax mu ndaw moomu ñuy suuli nit ragal naa ko lool ñaar ñañ fay tudd ragal naa ko mu ne ko xanaa bu ma la nangulee sama bopp danga am nga am kóolu ci mu ne ko waaw mu ne ko maa lay nangul sama bopp soxna Faati Isi ne ceerno mu ne ko mu ne ko sa mag ji lu ma sa wax day am te du dax wax mukk luy dañ moo ne moo may nangu ci bàmmeel te man faatoo a demal liggéey kon jigéen wàccoon na démb wàccaat na tey kon buñ demee ba jamono ñu di ko wutal benn bis bu xat bu tuuti bu gàtt bu néewu solo ne moom rek la am ci kaw suuf ma ne juum nañ waaye li leen dal nag mooy dañoo dellu démb te démb nag du tey dégg nga alxuraan lim wax wa ida bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawaara min alxawmi min suui ma bushira bi ayumsikuhu ala huun am yaddusuhu ma yaxkumun mu ne xewit wi xewoon ci kuma sa am jigen li ngay ñëk wax moy na dem ba ci àll ba ma rof ko ndax gàcce la may jural sida omar neena ñaar ci jahiliya benn bi daf may reelo waye benn bi nakar la may def ñu ko ban ak ban mu ne bi ma nekkee gëma gëmaguma rasulilaay yàlla sama yalla bop man omar ma di ko jaamu yalla bong bong la ko defon bong bong moy yi gaay doon joxe ci yori yoor nga yi xam ko ni <laughs> yaangi nee na benn bis may tukki doq sama yàlla ji yóbbu ne xiif bu metti dab ma ma damm doq geeg bopp beeg mbagg yi lekk toog ba mu yàgg nee na ma xiifaat tàmbalee ci làmb mbagg mi jaar ci ndigg yi ba ci tànk li lekk nee na sama jeexal ko yàlla ji far jeex moom nee na bu sama xel demee loolu ci jaahiliya nee na ci laa yëg ni ndeke jaahiliya du tus waaye nee na bi nag mooy ci jamonoy jaahiliya yàlla jox na ma doom ju jigéen Omar ku am jom la ku bari ful la ku bañ gàcc mu mat ci loxob doom ji fekk nag am na huit ans ngir denc ko dem ba ca àll ba ca salaan sa di gas di gas di gas ba Omar ñàkk doom ji jël musuwaat di ko foppal ñàkk wi te moom na la ful ci bàmmeel bi nee na bu ma xalaatee loolu ci lay xam ne nekk dëgg-dëgg jaahiliya du tus kon lay déggi foofu mooy bu amee am na ku sagal jigéen bu dee am na ku cëral jigéen bu dee am na ko jox jigéen wàccuwaayam xaqiqiyan duwul kenn ku dul lislaam moo fekkoon ñu di ko néewal doole fekk ñu di ko tuutal di ko xañ cër mu yëkkati ko def ko muy al ummu madrasatu na ko alhamdu shay waa waxee ida atataha atata shaaban tayiban araq te moom mooy al këndul uzma nga xam ne yàlla ñi mu soxla ci ay awliyaaw foofu la leen di dëxëñ ma ne magasin nag su amee sécurité bu nit yor ngir fetal gum fa teg ak ku koy garde magasin bi yàlla gën a am sécurité ndax Sëñ Tuubaa kuy am sécurité yàllaay ki la am ki ëpp sécurité ba muy nettali ba yonent yàlla Muhammad génnee Makka jëm Madinatul Munawwar ànd ak Babacar te dugg ci mu xunti xam nga lu ko sore benn jargooñ mennum petax ba tax mu ne xidal xadidil maanii nga ne ko a ah, mbàkk mu ne yuq nii anil madasia nga ne ko kuy am loolu mu ne li kulli abdin xaasia yatlubu xayrul xurab kon jigéen képp ki ko céeral yëkkati ko daaral teg ko ca kawoo duwul kenn ku dul lislaam loolu nag loo ciy déggee mooy ndeke lislaam képp mooy dara keneen ku jàppale leen lu dul lislaam lu mu la digal baaxut lu mu la teree baax na lislaam nag lu mu la digal loolaay la baax lu mu la teree loolaay la bon moo tax lislaam jëlaat jigéen delloo ko wàcc waay wu njëkk wam ko wàccee woon xoolal euh, Maymunatu sawdaa benn jigéen bu bokkoon ci jigéeni yàlla yi dafa am génn góor gu ñu wax Shaybaan Araayi ku am xam-xam ku ragal yàlla ku am wilaaya mu tëdd guddi suñu borom ne ko gis nga may munatu sawda mii mu ne ko ah mu ko sa la mu xëy jëm ci dëkk romb may mun a sawda ci biir aw xur mu jàdd ci xur wi ngir nuyu ko ngir wax ko ne sunu borom nee na yow mal xiyaam maa lay denc bu mu duggee ci xur bi rek may mun ne ko yaa shaybaana raayi mu ne ko la bayk mu ne ko mbir mi du tey ëllëg la kon xam nga a shaybaan am na lu ko yàlla wan waaye kii mu jëm si ci moom mu leeral ko itam kooku ëpp nag am na garaab daraayilul xayraat di ngeen dégg te suñ tubaa di wax ne wenn genn julli ci nuuru daara yi ni wecc na daraayilul xayraat genn julli ci nuuru daara yi ni wecc na sëñ bamba kenn xamul lu ma doon waaye taxu noo jóg gaa yi dañ maa njuy tey foofu lañ ma waroon dugal daraayilul xayraat ki ko defar jigéen a ko jommal mu def dalaylul xayraat lu mu def dox ci àll ci tàkk julli jot mu bëgg a julli amul ndox mu geestu amul ndox benn jigéen feeñu ko nekku ma ne jàppoon naa ne lu góor sàggan sàggan man a def ci salaatu nabi ala ala nabi loo xam ne bu soob laa ndox mooy ko mën ko joxam ndox mu ne ko yow da ngaa mën a amum ndox mu ne ko waaw waaw ñu dem ci teen buñ gas fanweeri ñay mooy fanweeri meetar mu tëbënn soxna jël loxom ca kétien ba teel ba four loolu la njëkkul tey biirun tafour bi laa richa demal ca mawaahi bi ko ca fekk mu dëy jox waa mu jàpp mu ne ko bi ma nil ta lu la may lii mu ne ko assalatu ala nabi mu dem def dalay luy xayraat imam jazuli kon looy dégge foofu mooy lu dul ak yàlla may ko góor may na ko jigéen ci wet ga ak risaala nag yàlla xam ndax moom mooy aji xam ji alxabiiru bi bi maa fi sudur waaye lu dul loolu garaat bu ca góor takk jigéen mën na koo takk te yooyu mu ngi toll nde suuf rabiatul adawi ñaata at la soobu àgg ci yàlla jëm na màkka ji tawaafi romb benn waaye mu ne ko xaaral ma barkeelu ci sa yoon wi lamb ci poosam ay dërëm jox ko rabia ne ko doy na nit ñii ci ci jaww ji këf lu bari jël def ci poosam ne ko am ma doon la yóbbal yow ci poos ngay joxe man ci jaww laay laay fare kooku jigéen la bu nu dellusee ci soxna jaariyatullaay maam jaara ndax jigéen ju nu wax lu nu ca wax lu mu doon kawteef bu mu doon maam jaara war nañu ko ci biir 33 ans te xool leen gaa yi 33 ans ni mu tuute pour jigéen ñi xamaat ne yéen ku leen xeebit yéen warul leen xeeb seen bopp ndax yéen magasin yàlla ci kaw suuf kon bu ñu leen joxee benn bis lànk leen ëpp ngeen ko bu ñu leen joxee benn quatre heures lànk leen ëpp ngeen ko bu leen joxee semaine lànk leen ëpp ngeen yéen yéenay jamono jamono yéen maam jaara Serigne Touba moo waxal boppam ne fi ma xamee ne julli guddi amul moroom nee na soxna jaara laa dégg muy wax min da'bi saalihiina xiyaamul layl kon mosul suufe te du suufe te du yàgg mukk ba mu suufee ku koy suufeel yaay suufee moom jigéen moom jigéen ku koy suufeel yaay suufe maam jaara rahmatullahi alayha mat na jigéen ñi sëriñ waaye mat ñu góor ñi sëriñ ndax bépp jukko bu ñuy taggi nitu yàlla bu mu doon maam jaara làq na ko te tëréwul nag ka ko yàlla booleeloon la ko waroon ci moom mu di ko def kon bu ma doon digal jigéen dama koy wax ne yow de liy de devoir mooy am na marché bu ma la war a yabal marché ba nag tiisi jaayu fa wala tiisi bii ngeen xam jaayu fa waaye tiisi bi fi jooy jaay mooy xas al al axlaaqul axsaniya bi si Ibrahima Tine doon waxtaane léegi nga xam ne ci la yàlla tagge njol ma ko wa innaka la ala xuluqin azim marché boobu boo fa demee nang fa tànn yére bu ñuy tudde alxafiya mooy nangoo oyof boo jëlee tiise bi yéen tailleur yi am na lu ngeen di wax longueur ak largeur ak épaule ñett yooyu na ko def lislaam ak lixsaan ak liimaan am na tailleur bu ñuy wax alwaali te mooy kilifa na fexe ba yóbbu ko ci tailleur boo xam ne moom la ñu tuddee kilifa kilifa gopp mat na kilifa nag ndax la ca Sëñ Tuubaa waxoon ca wasiyatu soxna Penda Diop mooy suub sëriñ gërëmee soxnaam ngërëm la yàlla tàppe ke gërëm ko te bu boobaa mu tàbbi àjjana waaye ban sëriñ ah azawju taqi si loola su ko ñamee ba pare takkaay la mu daamine ba mu koy daamine daamine ba da doon daamine tasawuf su amee daamine tasawuf ba pare nag nga takkaayoo li ñuy tuddee al amaana mooy kóolute ak ak saddaaxa mooy nangoo dugg ndax bo demé ci alxuraan wa ya'mal suma su min salihat suma su min zakarin aw unsa ku jëf lu bax kuma mu doon góor la jigen la dara bu gëmé yàlla sunu borom né lama ma ku góor ko mom la waajal kenn lu jigen ko bo demé ci suratul ahzab inna al muslimina wal muslimaati ba laaya ba daanu daf ne aadallahu lahum maxfiratan wa ajran azima wa fi ma gaay yi tay tey xam nga man peul la waxtanu peul naka bax serigne bi rek la xam bo mu dugalee fenen danga may jaawal kon bu dëngee ngeen xam ne non rek la wara a euh lu ci jup yalla lu ci deung ngeen xam ne nun la te dañ ñoo jox si occasion ndax dafa taxul nu wër dama yaram dafa xaw ngi sant di dalal nyep jamm di sant yalla bu baax ci wote gi nu wote ñu wuy sinu tay ñaan nak lepp lu ñu fi ñaan ci ak salaatu ala nabi wala lu mu doon yàlla ko yàlla nangu te bu ko nangoo yàlla na ko jox suñu sang ba Serigne Sam Mbaye rahmatullahi alayhi yàlla yàlla def nu teew fi diwén noonu ñëpp te kenn rek man aajo ju ñu ju mag ju ndaw ju siiw ju nëbbu laag ju ñu xam laag mu doon yàlla xam na fa mu toll na fa teg baaraam faj ko yàlla mën na ko sañ na ko yàlla ko def assalaamu aleykum wa rahmatullahi ngeen baal yàlla